Net Bi TV abonnez-vous seen chaîne bi di Net Bi TV seenu actualité buzz sport religion politique humour musique ak Net Bi TV léppay leer mbokki internet net bi tv dal leen ak jàmm seen actualité du jour ñu daal di koy dooree si tiis ak nakaar bi nga xam ne rek assemblée nationale dañ nañ koy yeewoo di génnub àdduna ki nga xam ne moo fi nekkoon député l'honorable Lémou Touré Ndiaye mu nekk bokkoon ca parti démocratique bu Sénégal moom mi lee di Lémou Touré Ndiaye nag moo daal di génn àddina niki tey ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass gannaaw buñ ko bëggee woon évacuer ca diwaanu bitim réew moom di Lémou Touré Ndiaye nag nag foofu la jaaree mu ñàkk bakkanam mu doon ab communiqué boo xam ne rek ñii di waa direction du parti démocratique sénégalais moo ko daal di génnee mu doon nag ab tiis boo xam ne rek waa PDS daal nañ koy yeewoo moom lee di Lému Touré Ndiaye mu bokkoon ca parti démocratique bu Sénégal moom lee nag daal na wuy ji suñu borom niki tey waa groupe net bi TV di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xaree ko àjjana firdawsi leneen si wàllum xibaar bokk na si mbirum Ousmane nag ni ki démb rek ñu daal di woon koo gis mu daal di woon a génn ca diwaanu Ziguinchor mu mel ni nag moom mi lee Ousmane Sonko mi nga xam ne rek jamono ji kii di Madiambal Diagne dafa xam le di woon dafa daal di réer moom mi lee di Ousmane Sonko nag daal na feeñ ni ki démb mu daal di xamal askan wi demul fenn mu ngi toog ca këram bu nekk ca diwaanu Ziguinchor ci jamono yi le manifestation ñu daal di gis rek kenn gisutoon kii di njiital Pastef di Ousmane Sonko mu mel ni sax kii di Madiambal Diagne dafa daal xamle di kii di Ousmane Sonko dafa daal réer waaye nag moom mi lee di Ousmane Sonko mu mel ni jamono ji génnam démb bi daal dina weddi loolu waaye moom mi lee di Madiambal Diagne dafa daal di insister rek ci réer mi nga xam ne rek dafa daal di wax nekk moom mi lee Sonko def ko daal di réer mu daal di nëbbatu ca diwaanu Casamance ba tax kenn mënu koo teg bët gannaaw bi mu gisee kii di Ousmane Sonko mu daal di génn ni ki démb ca diwaanu Ziguinchor moom mi lee di ma Madiambal Diagne dafa daal di wax ne kii di usmaan Sonko dafa daal di feeñaat rek waaye dafa réeroon ba kenn mënu koo teg bët moom mi lee di Madiambal Diagne bi nga xam moo daal di dox ci diggante Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr bokk na si ne rek moom njëkk a yëgal ki nga xam ne rek mooy njiitu mi di Macky Sall ba tax moom mi lee di Madiambal Diagne bu mu yëgalee bile dossier mu mel ni sax kii di njiitu réew mi dafa daal di ba taxoon sax moom njiitu réew mi di Macky Sall mu daal di woon woo kii di jàppale ba ngir rek ñu daal di woon si addu doon ay kàddu yoo xam ne rek moom mi di Madiambal Diagne daal woon ko fës fësal ci émission Faram Facce bi ñu ko invité woon ni ki démb mu doon loo xam ne jamono ji dana jul ay révélation yu bari si biir réew mi ci kaddu yi nga xam ne rek moom mi lee di Madiambal Diagne daal na koy yëkkati ne rek moom njëkk yëgal kii di président Macky Sall bi le dossier bi nga xam ne rek moo daal di dox si diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr leneen lu jëm si wàllum actualité bokk na si avocat Ousmane Sonko yi di maître Juan Branco moom nag jamono ji mu ngi mel ni rek bàyyeegul bi le mu sedd si ci digganteeg moom ak uh, ki nga xam ne rek uh, mooy état bu Sénégal ndax moom mi li uh, di maître Juan Branco ci manifestation yi nga xam ne rek jamono ji danañ ko yéene meeku si biir réew mi ba ay nit daal di si ñàkk seen ay bakkan ak ay manifestants yoo xam ne rek dañ leen a doon maltraité te moom mi li di maître Juan Branco mu daal di jàpp ne rek loolu teguñ ko fenn ndax ab doomu aadama kenn waru ko toroxal ba tax rek moom di maître Juan Branco mu daal woon a génn mu xam am na ay vidéo te mu am ci ay preuve yoo xamante ni yu daal di leer nañ ñu na ko daal di fësal mu ni nag jamono ji askanu Sénégal daal di nañoo pare rek ngir ñu daal di wone ay vidéo yu leer yi nga xam ne rek daal nañ koy nemmeeku ca diwaanu Ziguinchor ba tax rek moom mi lee di maître Juan Branco mu daal di wax ne bu nekkee ay vidéo yu leer na jot na rek yoon na def liggéeyam jëmale ko ci force de l'ordre yi nga xam ne rek ñoo ngi doon toroxal ay doomu aadama basaa ñu daal di si gis rek ñoo xam ne foofu la ñu ñu daal di ñàkk seeni bakkan te mu jàpp ni loolee lu ñu mën a yóbbu ci yoon la ba tax rek moom mi lee di Juan Branco mu daal di xamle ni rek loolu dañuy daal di wéyal xeex bi ndax moom mi di maître Juan Branco jamono ji mu ngi wéy di ay preuve ci yile acte yi nga xamante ni rek jàpp na ni ay jëf yu ñaaw la yoo xam ne waruñ koo teg ab doomu aadama rawatina ci ñoo xam ne rek dañ doon def ay manifestation ba ay bakkan di rot moom mi di Juan xamante ni ah, daaj nay am ay preuve yu leer nañ ah, nañu wéyale bi la xeex ñu daal di koy génnee ngir rek ñu mën a yóbbu ah, mbir mi ci kanamu yoon